salaamaaleykum suñu bokk internet yu Dakar Net dañu kontaan saa di ànd ak yéen eh, ci seen eh, rubrique yi nga xamante ni moom mooy reportage tey nag ñu ñëw fii nga xamante ni eh, moom mooy Caaroy mbir mu tiis a tiis moom moo fi am xale bu ñu naan Alaaji Gueye tollu si 22 ans moom la oto fël démb bi une heure jotee le 18 démb bi une jotee dafa doon daw lu bari ànd ak xaritam di ñëw bi mu ñëwee fekk benn camion benn oto bi nga xamante ni machine lañ koy wax mooy ndaraan yooyu nga xamante ni dañuy gaare dafa ñëw gaare fii ndax fii boo xoolee dafa am travaux ci wetu terre bi ci la xale bi daw saaraan ñëw mbëkk ko bi mu ko mbëkkee dafa génn àdduna sur la ku mu nekk mbir mu tiis a tiis mbir mu doy waar ba sax ñu bari ñu ngi ñaawlu ah, li nga xamante ni travaux yi nga xamante ni du egg alors du ñu sori ci waxtaan bi ñu ngi fii taxawaak ak ki nga xamante ni xaritam la dañu koy bàyyi moom mu wax ñu expliquer ñu mbir mi naka la demee bu ñu fa jugee ñu dem ci waa kër gi waxtaan ak papaam ak yaayam xam naa du yomb waaye dinañ jéem pour dégtal ko mbokk internet yu Dakar Net. jaale tamit aussi waa caaro yi di jaare jeunesse su caaro yi bépp ku ne xam na ne ki nga xam ne moo génn àdduna di ndaw loo xam ne ndaw lu sori woon si ñun la élage amutoon ak kenn xaar ma yàlla wax dëgg fa yàlla kon ñoo ngi lay fay bu baax a baax a baax aussi tamit di ànd ak tiis di ànd ak naqar bu baax a baax parce que lii du ma ne fi gulee du ma ne fi c'est la première fois parce que ku nekk xam na ne jeune bi nga xam ne dafa jëloon mbotoom pour engagé wu pour am am fu mu ànd ak xaritam pour dem fa yàlla dogal tey jii fii latrit kese lañ fi def yéen a ngi gis lépp di rouge amul benn tëli bi nga xam ne tegagum na fi kon dama naan daan bu si mënti am tamit dama naan aussi daanu état la yàlla mën na ñëwee ak ndogalam parce que jaam bi moom doo xëyee suba sax yeewu salal teg sa benn tànk rek suñ borom la neex mais ku ne xam na ne tamit ñoom duñ liggéeyee ba pare war nañu mën a am garage boo xam ne fa la ñuy gaare seeni oto parce que tëli bi amul espace boo xam ne espace bu yaatu la kon am na tamit jeunesse bi loo xam ne tamit war nañ ko mën a bàyyi xel di sensibiliser ñëpp parce que ndogal li nga xam ne la tiis boo xam ne la dal na si ay waajuram metti na trop ñu leen di jaale tamit en passage que yaayam at papam at famem bi yëpp ñun suñu xarit la woon nekkoon ki nga xam ne dafa sori woon si ñun loolu bëggoon ñu loolu am yare ki teggin amut ak kenn xaar ma yàlla voilà. fi may jaay daal fi la ma fekk moom dafa bëri di guddi laa gis dëgganteeg gisanteeg ba may togg fii la toog sama wet ñuy waxtaan waaye yaa ngi waxtaan bi yaa ngi sangu daal dem. si laa gëj a gisee fi laata ñëw fekk man tëdd naa ba set ma génn dem tali di jaay ba ma jaay benn heure bi benn xale bi daw ñëw ne ma yaay mu ne ma diw de nee na ma alaaj def na soog bu metti ci booru pont bi ma ne ko soog mu ne ma ne ko ah alaaj dëgg yàlla tëral na scooter daq fekk mu ngi sama daqam la ma sa papa alaaj def na si booru pont kii ñëw fekk papaam nekku fi fekk fi ñaari magam magam bi ko yónni woon ak beneen magam bi mu kooku daal dem fekk fa ban de fekk ba avant mu ñuy egg fekk dee ban sàmm ko magi daal tur nañu wax maam mu ne papa yi kiir bapaam ñu ñor bu fekkaan fi may jaayee na doo jóg man leen billaah El di ko xool même si deetu du ma jóg taxam nga xam ne moo topp mu fekk moom ak ay jooyam na ma yaay jugal nag El Hadj Diop dafa dund woon dafa dee mën na ma jugal rek ma jóg ànd sama benn xatu papaam ñëw bu tali bi fekk benn policier bu monte tali ma ne ko diw mu naa ah, ma ne ko sama doom moo def soog fee léeg-léeg moo woowee naa bëgg na nga fexe sabar ko amat pompier jël si ko fekk waa gi taxaw ni ma ko ba yàgg mu ne ma yaay yaayam ma ne ko maa yaayam ko mu ne ma mère dem nga liggéey sa liggéey li suba dinañ ko def daa ñëw si kër gi ba ñu tey laa fekk maamam ak bàjjenam ak rak magam góor bu ko demoon tiim ko di jooy si kër gi di laa ko am ah, ba tey waxuma ak moom ba ki dem gudd laa gi gisante si laa gi waxante ak moom man la demee ku ma ku baax la ne ku ma yërëmoon la ku xam sama yërmaan bi la woon lu mu liggéey jox ma amul benn problème du mer daf de bëggul ma mer su may jaayee ni bagage bi mooy yóbbu mooy indi amul xaar ma yàlla kenn kër gi du xaar dara lu lu war defa day defa day ko gis nga mooy liggéey amul benn problème ku baax la woon yërëm ma yërëm ay raqam yërëm ñëpp amul benn xool bu set la yor dama ko yàlla yàlla ko yàlla xare fi mu jógee yàlla ko gën a gërëm jëm wam jëm yàlla ko gën fi mu ku ma yërëm moon ku yërëm yaayam la ku baax la démb tey lekk ma naan di ko jooy démb ba léegi mun ma lekk mun ma naan dem fii laa fi naan toog di xoole man kay ñaan yàlla yàlla ko yàlla xaaree àjjana. lan lan lan ngay wax euh, lan ngay wax autorité yi xamante ne ñoom ñoo indi pont bi parce que pont bi tam ñu bari ñu ngi ñaxtu ni pont bi dafa kawe xale yi euh, ñu bëri ñu ngi naan xale bi moo dawul ndànk ñu bëri ñu ni tam oto bi moo arrière bu baax baax dal si kawam. waaw loolu laa dégg ñu ngi naan oto bi arrière dal si kawam ne naa moom a dal si kawam wóor ma yàlla la wóor man fekkeewu ma kon ma wooyee tamit kaay xool El Hadj dama ne la mënu ma ko xool ndax lii laa dem mënu ma ko xool jox ba soon man le mun ma kool xool ba ni ñu ko jëlee yóbbu ko mu sax pompe jël ko yóbbu ko mu hôpital parce que xoolu ma ko ñi tam ñu ngi naan moo daw dal si kaw oto bi ñu naan oto bi na ànd dal si kawam leeru ma daa yàlla la leer waaw yaruma ko nag dafa nekko si maam waa teen tubaab ñoo ko yar ba ba nekkee ba xaw faa sonn laa ko jël ji indi ko man maa ko indi ko fii ba mu ñëwee tey métier laa ko dugal respecté métier am trop mën métier am respecté métier am barki de maga sama taaw mbuur la jóge indi oto oto baa ngi ne gaare si la yéen du liggéey suba ba ngoon jot moom ne su futteeku ne oto bi di xoos ñu war pentu oto bi démb xëy mag yi yónni ko dafa jël li ma orange money mu àbb scooter dem lii mooy deewam lii mooy deewam amul benn problème démb na ay moroom ñu ngi koy tagg di ko gërëm ñi ma gis fii tax ñu koy gërëm xaw ma leen waaye koo xam ne sa doom ñu ku baax la ko am yar la ku am yitte la démb ba tey loolu laay dégg dégguma leneen tey loolu laa gis si bi alaaji Géy la tudd ñu amoon ñaar fukki at ak ñaar yàlla nag lu gën rek lay def ndax man mi papaam dama xëyoon génn mooy génn maa bàyyi mi ngi si liggéeyam après lañ ma woo téléphone ne ma kat xale bi dafa accident man loolu laa ci am ba ma ñëwee tamit ci place accident ba ba ma ñëwee fekkuma lu dul néew daal laa fa fekk waaw metti na metti na trop parce que sama waay la sama genn wàll la amul lenn loo xamante ni dinaa ko yëkkati mu diis mu ma si seetaan te ku am ngor la parce que am ngor weesul nga juddoo si banlieue bu garaaw mosoo ñu laa dégg si lenn lu ñaaw mosuñu ko see dégg ba mu juddoog léegi sonalu ma daal si dara yàlla mi ko jël nag dañ koy ñaan mu yërëm ko xare ko ci àjjana yi gën a kawe. fii nag moom ñun ñu fi dëkk ñëpp ko gis bu nawet ñëwee dañuy inondé oto yi duñu daw ndàgg te ay xale doo nga fi am ay xale doo nga fi nekk saa su nekk ñu ngi jànkoonteeg ay métit teer bi moom am na ñu mu arrangé mais am na ñu mu dérangé ñun na dañuy dolli sant yàlla parce que ay juddit lañu te ay taalibe lañu lépp dañ koy delloo si yàlla rek xam na moom moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat waaw man fekkeew ma mais nee nañ ma magam magam bu góor moo demoon ci lieu bi nee na bi ñuy wàcc passerelle bi dafa tombé waa ji doon arrière pokolin bi doon arrière bi ñuy wàcc brisque mënatuñu éviter passerelle bi mook beneen xaritam la woon xaritam bi am nay blessure yu ndaw rek waaw mais man moom mënu ma si sori ci foofu parce que fekkeewu ma ko daal waaw mais loolu lañ wax scooter beeg lépp a ngi woon foofu waaw metti na daal metti na boppu metti yam parce que man ba ma tiimee xale bi gisuma deret laa xam ne lii metti na waaw dafa tëccu si biir xol bee toj xam naa ne parce que dënn bi la waaw dañuy doole daal sant yàlla. moom sur le coup la génn àdduna ba ma ñëwee moom fekk ma fa bakken waaw sapeur yi dañoo yéex a ñëw woo nañ leen presque deux heures de temps yoo xamante ni ñëwuñu waaw dañoo yéex a ñëw ba ñu ñëwee man maa leen jàppale ñu dugal ko ci oto bi mënatuma tiim xale bi dama obligé boole kook samay mag ak samay am di jaam yu kii ñu yóbbu ko hôpital fi tool toll nii ñuy wax ak yéen ko waaw ñu ngi nekk nekk ci affaire hôpital bi pour lijjanti ko di ñaan yàlla jot ko jébbal ko yàlla sunu boroom yàlla def si moom yërmande loolu daal lañ koy ñaanal xale bu yaru la bu baax la man maay papaam yaayam a ngi si biir ku yërëm yaayam la chaque jour bu yaayam di xëy mooy yeewu dem lala ko place am ko ba yaay ji génn muy soog a dem liggéey ku gore la daal ku jàpp njàmburam la xaritam yi nag gis naa li ñu def waaw ak sama xarit yeeg ñépp maa leen di sant di leen gërëm parce que seetaanuñu boobu ba tey ñëpp a ngi fi gis ngeen ko ñëpp a ngi fi waaw doolee sant yàlla daal. xale yu nag sama doom la wax dëgg yàlla sama doom bu baax la sama doomu mag la wax dëgg yàlla amul benn problème du siggi sax xool nit waa xëy na nag yàlla moo dogaloon lii rek séentuwuñu ko woon nag si moom suñu sajoon moom mu dem ba muur jabaram indil ko yaayam. ñu ngi koy ñaanal fi mu jógee yàlla na ko yàlla na ko gënal moom fi nga xam ne si tëli latérite bi la la dajeeg oto bi malgré ko oto bi du fekkee dëgg neex yàlla oto bi dafa taxawoon bougé wul fekk si ko moom moo daw fekk ji oto bi voilà noonu la ndogal li amee moom moo daw dal si oto bi parce que amoon na lu mu doon moytu yàlla dogal moom moo daw dal si oto bi mais tamit comme li ma lay waxaat rek oto yooyu duñ liggéey ba pare war nañu mën a am seen garage bopp boo xam ne war nañ fa mën a gaare mais du woon yoon ñoom tamit seen part de responsabilité tamit moo ngi si ñu ñëw ba si digg tali bi gaare fi kon loolu tamit mën na indi danger li mu doon daw bari na parce que mboto moom daanaka doo si yéegee loo mën a daw rek danga nga koy xeeb aussi tamit jeune ngay doon mais ndogal moom fi mu war a ñëwee rek en même temps lay ñëwee voilà d'ailleurs euh, d'ailleurs que xaritam la moom sax moo nekkoon borom mboto bi yàlla dogal na tamit xaritam boobu noonu dara jot ko dara jotu ko moom mucc na si jàmm moom mi nga xam ne moo doon dawal mboto mi sunu borom dogal moom moo si génn àdduna moo si ñàkk bakkanam non d'ailleurs que xam nga signe yooyu noonu dafa graaw ndaraan signal yooyu ngay gis nga xam ne mooy tonni mbarit mi xajul si dara doomu aadama carcasse kese la kon du si nit dalee il fallait que mu def benn effet voilà si loolu la dal yàlla dogal mu ñàkk bakkanam sur amul dem hôpital abul nii dañ ko jël rek yóbbu xëy na loolu la suñ borom dogal mu metti euh, doon tamit aussi tamit lu ñu metti lu ñu naqari mais yàlla kenn mënta xëccoog moom parce que donc bi nga juddoo sa biiru ndey la la indi si àdduna ne fii ngay yem si àdduna kenn mënu si dara